liggéeyu nit moo gën a euh, je sais pas cest nga nekk ci nit mu neex moo gën a yomb nga wëy sa wëyu bopp mu neex hmm. ndax euh, da nga gën a mën a sonn ci nit ñi wala lan la parce que euh, xam nañ ni moom hmm. wëy boo xorom ba teg hmm. wëy jàmbur loolu dara du ko fay mais man par exemple bu ma jëlee sama exemple bopp déglu Moussa Traoré mu xoromal keneen moom ma gën a neex déglu wëyu musa Traoré lan mooy différence bi ndax Moussa wala lan benn la rek parce que boo leen Moussa Traoré fële di ngeen Moussa Traoré fii c'est la même chose c'est que li indi loolu mooy yow loolu moo la neex mais boo toogoon di déglu sumay sumay way parce que man ñu bëri may dañ dañ ma dañ ma koy dañ ma koy dañ ma koy kii nee ma man du ma way wayu mbëggeel comme ni koy gars yi defee man boog sumay way yu bëri damay opté way loo xam day yeete man foofu laa wutee ñu bari moom. ah mën nañoo way mbëggeel muy neex tey yeete. non non mais bien sûr d'accord mais mais mais en am na benn morceau bu may waaj bu may waaj bu may def nii ah comme am na benn morceau bu ma bind teg ko ci def naa clip bi teg ko ci wayu mbëggeel la. duñ ci may. ah may ñu ci balaa ñoo xuus. parce que dama ne yaa ma bëgg am maa la bëgg yëf yi ay bëgg. bi xam nga bii ay bëggante la te ko si xale bi Moussa xale bi dafa am na fili ami jëng nga yàgg nga jigéen dafay xees ñuul mbaa nga bëri fili te ko si xale bi Moussa xale bi dafa am na fili aji roxi maska oustaz mooy sa baay ca Gambia aji xadi Jóob di sa yaay bu sama waay la teg ko ci ko waaw xam nga xam tey boo déggee morceau bi woy mbëggeel la kenn daa xamaa woy mbëggeel de hmm. woy mbëggeel gis ni ki xool ki bëgg ko woy ko nii kenn daa xuma ko mais li kiy wax léegi laay laa laa ci laay ñëw ànd ak ñeneen moo ko dàqal que man su ma suma affaire bopp c'est normal parce que man su ma génnee kaset balaa ma génne kaset quatre ans lay def mais xam nga tey nit nit ki la bëgg sentir la ne ma la bëgg ñu ànd def benn morceau featuring non c'est que ni ngay amee amour bi parce que kooku dafa bàyyi ñëpp ñëw ci yow bokkul ak ak xam nga sa yëfu bopp nii ko xam la xam nga ndax xam nga li ma bëgg a xool léegi comme par may defal nongoloo gin ngay morceau boobu studio lañ toog nii ñu toog non parce que nongoloo dafa ñëw ne ma grand man kenn du ma tëgg sama kaset pour yow moment boobu. cassette yi génn Sénégal yëpp maa ko teg parce que ay 150 cassette Sénégal lépp maa ko joué te yëpp ma ci tëgg yëpp macha allah yàlla ci def nag yàlla la sant yàlla. ndax kon. te bàyyi wey. non mënu ma ko bàyyi li may def neexul. c'est pas à de juger en fait. ah si non si xam nga lu tax. non xamul tax. sama xalaat amul njëriñ non parce que yow yaa ma li ngay def ñeneen ñi moo tax kii yi moo tax may yaa ngi juge waaw mais sama man sama xalaat amul njëriñ xalaatu ñi seetaan ah, ñoo ëpp njëriñ ah kay yow dañuy jéem dañuy jéem xool rek li yitteel askan wi ñu laaj leen dañuy laaj ndax waaw may ma ma ñëw wax non bàyyil bu nekk sur la défensive dañuy waxtaan rek. déedéet non ma ne. man doole ma bari barajee de. Moussa kenn baraj barajeewul la defar naa nga bëgg dinañ la doon café. café non café jeexul. Eh, mi ngi nii maa ngi naan de. nañ dem ci sa question. waaw man dama am ñaari question yu may. bàyyi de yu may laaj. bàyyi si waaw jaga. borom dëj bi moom mën naa jooy dajam. fii fii dëj amu fi. fii moom benn nit amul. <laughs> waa ndokk. Moussa maa ngi lay nuyu. yaa maa lay fay Ndiaga. voilà jaajëf. Euh, demal ñaari question rek laay laaj. waaw ati bisimilah benn bi mooy géer. gu yàqu. waaw ma bëggoon a xam euh, boo yemoon ci tëgg rek. Hmm. ci géer gu yàqu du ma jaaxal. waaw euh, mais li nga ci teg taasu fan la. waaw mais yàlla. non lépp buñ ko xam nga lépp buñ ko taxañee ci yàlla waxtaan wi daal maa ngi ñëw de saa à tey jii nii maa ngi ñëw de waa dikkal kon <laughs> maa ngi ñëw de dikkal <laughs> bu lee ma dagg yàlla la mhm. mais d'abord ak bëgg musique sabar mhm. xam nga man dama nekk xale di tëgg sabar sama waa kër daf leen jaaxal même suma papa bambara la suma papa bambara la suma yaay mooy sénégalaise mhm. dëkk Diourbel ma bokk ci famille moom Cheikh Ayma Fall njaareem laa mhm. dëkk kër Cheikh man dama maajaal presque douze ans dama ko maajaal Jurbel foofu laa jàngee sa tëgg ci ay xiin muy nuyu waa Njabi waa waaw mhm. ay xiin laa jàngee tëgg sabar mhm. mais benn affaire boo xam ne amul la boo xam mu ñëw mais mënu ma ci dara parce que gée géen ñi ngi woy géen ñi ngi tëgg dafa am ku ma nettali waaw koo mën a dëgg la ah. waaw euh, ci sa kebetu yooyu sabar yi mhm. dañoo wax ni dafa am benn famille tëggkat bu fi nekk waa ma jàpp ni mbay gay fay la waaw ñoo xam ni seen kër nga leen daan fréquenté mhm. daan yenn ci sabar yi daan yóbbu waaw te daan def première partie ci sabar ba mhm. ndax loolu taxul nga bokk ca waaw d'abord mbay gay fey dama koy nuyu kooku moo tax ma bëgg sabar lu tax waxoo ko bi ma la ko laajee déet parce yaa ngi doog yaa ngi may doog a posé yaa ngi may doog laal ah mais nee na la gér gu yàqu gi fu mu jógee. waaw moom laa moom laa expliqué nii. Mhm. xam tey jii man Mbaye Dieye moo tax ma bëgg musique man dama ko faa. gis nga soo bëggee nit bul bul bañ a wax ni nit ki nga ko bëgg man gëw ma tey Mbaye Dieye moo tax may def musique dama ko bëgg dama ko faa bëgg ko sama biir xol boo seetloo sax. ni ñuy waxee. ni ñuy taasoo dama ko faa. dama ko faa trop. Mhm. Euh, sama dernière question Matal. mooy. ku ci koo ci gëj a gis coro mhm. maman mhm. koo ci gëj a gis toog six ans bu dee ñëw rek mbëggeel lay woy mhm. wala sama yaay wala sama yaay wala sama euh, ci Aline Mbaye Nder bi muy ñëwaat pour nit ñi fàttali ko mooy maladie d'amour maladie d'amour moom la àndaale waaw yow nga andi foo ko teg ah nu mu tudd teg ko ci teg ko ci waaw mu mel ni mbëggeel euh, pour bind loo xam ni xam nga jamono ji coupure bii Mhm. metti na waaw jamono ji metti na mhm. ñi daan am benn amatuñ ko ñi daan am ñaar benn la ñuy am mhm. ñi daan yi ñoo ngi la yooyu lu tax bindoo ci parce que da ngay daal di laal xolu doomu aadama yi génération sous le soleil bi nga xam ni mbëggee rek la ñuy dund te bind ci mbëggeel gën a gaaw waaw mooy mooy mooy sànq li ma wax xam nga sànq dama wax benn wax xam nga clip bi yàgg na bi ma ko defee yàgg na léegi mu léegi mu am un an et te kaset bi pare gu am na ay moches yu ne ci biir yoo xam ni pare ma. Mm. damay man dama bind loo xam ni nit ki ci société bi la moo tax ma ne léegi comme lan comme lan ci société bi. mais comme li mu wax léegi par exemple dëkk bi dafa metti xam la ma joxe dépense sama kër dama jënd gaz dama jënd lu nekk. Mm-hmm. xam naa xam naa lu méttee. Mm-hmm. mais lii loolu dañ ci war a wax. Mm-hmm. du dëgg dañ ci war a wax parce que. balaa maman bi maman bi. ci Viviane laa la mujjee seetaan. waaw loolu laa doon bëgg a wax de. fan nga mu fan moom ba léegi wala. déedéet maa ngi joué ak moom. laay kooku yaay Fall la kooku soo xarit la maa ngi joué moom te te batterie laay joué. waaw batterie laa la fay séenee. waaw c'est vrai que batterie lañ fay gisee. waaw waaw ah, xam loolu sant yàlla yàlla yàlla daal mooy maye. maman <laughs> Moussa man sama laaj euh, ñaari laaj laa am yu ma lay laaj. Mhm. bi ci njëkk mooy euh, euh, damaa bëggoon a xam. xam nga tey ji yéen su fekkee ne da ngeen nekk si euh, loo xamante comme ni nga ko waxee loo ko. Mhm. nekkul tamit loo jàngee fenn. Mhm. maanaam da ko bëgg rek ay nit di ko def nga topp si ñoom. Mhm. ba tey ji nga di ko def. am euh, sa xam-xam mën na cee bañ a bari. mën na am nga riirandoo ci mën na am tamit sa inspiration tamit du du sori noonu. Mhm. bay tax boo ci defee ñaari morceau rek ca ngay yem. Mhm. est-ce que nekkul ne six ans yi nga toog nii yëpp da nga ñàkk loo xam ne mën nga koo jagleel askan bi. Mhm. pour mën ci mën mën a bëggee ci yow. tax nga dem toog jàpp sa ñaambur ba inspiration bi ñëwaat ndax nit moom xam nga tamit loo xam ne xëy na du lu mu doon wala lii du yomb torop ci moom boobu benn laaj la ñaareelu laaj bi nekk xam nga à chaque fois nit ñi fii même bu ñu amee ay problème ak nit duñu ko nangoo wax. waaw damay gis ne tamit euh, bëri na loo xam ne ay yooyu rek nga doon def yow sa moroomu artistes yi ñu dem ba benn période gisatuñu loolu noonu dañu xamul ndax am yow ak sa diggante yow ak artistes yi. ni mu neexee woon dafa neexeetul noonu. Mhm. tax mënatoo dafa teg ñoom ay duo tax yow tamit mënoo dem mënoo demal sa bopp tax nga dem toog. Mhm. wala nan la demee dama bëgg a xam ba xam relation bi nga amoon ak ñoom moom nga am ba tey. lan moo waral 6 ans yi nga toog parce que 6 ans moom ku ko toog te am lu mu génne loolu xaw na doy waar ci nit ñi. en fait euh, du 6 ans sax 4 la. ah la. Euh, yow juumoo mm-hmm. moo parce que sama sama mag ji mi ngi naan ah kon maa juumul. non juumul. Mm-hmm. baa di ba di di kii. <laughs> non mais juumul non juumul. mais xam nga dama non dama dama toog presque 6 ans. Mm-hmm. mais 4 ans laa toog génn ma kaset mais dama koy kii laa gëj def ay duo. ok laa gëj def duo. mais du du du ñàkk dama dama amul dama xulóog man lu ma xulóog musicien man ñëpp samay xarit lañ tey boo seetloo maa joué Salam Batterie. voilà maa ko joué Batterie maa nekk ci ginnaaw daa lay passé Papa Ndiaye Coppel maa ko doon joué benn émission Batterie su ma neexoon du ko def dañuy def laay def mais man gëmuma loolu man musicien laa. te man dama bëgg partage man dama bëgg a jàpp ñëpp jàppale man loolu loolu loolu moo ma neex man du ma xuloo kenn musiciens yi aw ma ci kenn xaar ñëpp samay xarit la ñu le monde amul ci kenn koo xam ni du ma romb te du ma nuyu man boobu bu fekkee nag ah ñoom dafa am lu ma lu ma leen def man jàpp naa ni ñëpp samay xarit la beneen bi nga ne dama toog 6 ans waaw moom nga tontu waaw nee na nit ki loo nekkoo ko par doo géwél waaw ndax du wëy dafa jafe ci géer non non loolu question jafe xam nga tey jii comme yàlla def maa ngi tëgg sabar doon taasu doon ay futuri mu neex pour def leneen lu neex jafewul jafewul parce que def naa léegi ñoom rek kenn jàppale maa ko bind sama bopp te neex na nit ñi wala neexoon nit na teg ko ci maa ko bindal sama man su may marché maa ko bindal sama bopp kenn du ma ko bindal lépp maa koy defal sama bopp maay tëgg sabar yi maay joué batterie maay def sumay mélodie. ku lay produire. waaw moment euh, maa ngi sant yàlla nag mais dafa am su ma benn xarit boo xam ni Moussa Diouf tey way. waaw ki ko produire almaami fay moo ma boole almaami almaami jàppale ma ba kaset bii bi may waaj def nii moom moo ko war a produire incha allah bu soobee yàlla. parce que dama koy gërëm parce que bi ma toogee nëbbatu moom moo feeñ moo ñëw feeñ. bi nga réeree moo la feeñal tamit ba tey. Mhm. ba tey d'accord naa comme dama réeroon ci yéen. Mhm. waaye nga tey feeñ nga tey. réeru ma de sax de ñëwaat beneen fee mu nekk euh, toog nga presque 6 ans. ci li 4 ans waaw 6 ans waaw. 4 ans presque 6 ans léegi 4 léegi ñu may la 4 ans. am mhm. d'accord génneewoo kaset euh, tegoo dara si marché bi. est nga yaakaar ne musique jamono ji fu mu toll gauche di bomb droite nga bëgg ñëwaat bëgg a imposer si bopp sa bopp un dina ndax dina yomb deux ak naka nga nar a ñëwee no ban style nga nar a ñëwee pour nekk buzz moom moom laa expliqué ça dépend xam nga tey ci lan xam nga ki nga xam ni mooy moo nar a ñëwaat pour xëccoo day fekk ku ñu xamul woon waaye ñi fi nekk tamit. waaw nekkoon ay kàngam ña ngay buuxante ak xale. waaw matal matal génération gu bees xam nga dafa am benn affaire. waaw dafa am benn boo xam ne. waaw waxuma yéen sax mais dafa dal sax grand yi. waaw mooy lan mooy fi kuy ñëwaat. Hmm. il faut nga liggéey. waaw pour mën a jotaat sa place. xam nga lu tax dafa am benn génération boo xam ni. Hmm. ñoom ngeen daan àndal. waaw te am na beneen ñoom ñu fi ne ñoo jamono ji ah, waaw ñoo jël musique. téye ko mhm. te génération ba ngeen daan àndal. Mhm. ñu bari fi mu ne am nañu amatuñu jot googu. Mhm. pour nga jox nag génération bu bees bii. nga xam ne ñoo yor musique. il faut nga liggéey. kon ñu dañoo màgget. non màggetoo mais kaay méegal la man dama la daan seetal ci musique màgget nañ. waaw man man dama naan seetaan ngeen génération bi fi nekk. Hmm. te dëgg musicalement parlant. Hmm. màgget ngeen. monte nag te xale yi fi nekk yi dañoo mën way. mu nekk jigéen ñi góor ñi xale yi ndaw yow fi boo ma posé question damay bàyyi ma tontu. di fi bomb bomb yu neex dañ lay dañ lay kii. waaw d'accord man kon ci yéen man bombu ma wala ñun bombuñu. mais mais dama lay wax ne la tey jii même bu ñu bombul waaye li fi bomb ñoo koy joué. mën naa ne. d'accord naa ci loolu mais xam nga musique musique musique doo màgget xoolal xoolal ngay xool tey Baobab ñaata lañ toog. mais ñoom dañoo am seen public bu bopp. am seen monde bopp am seen monde bopp musique yi bopp. waaw mais non attends mais tey Baobab da ngeen da ngeen dem seen soirée da nga fa gis ay jeunes ah. waaw da nga fa gis ay jeunes ah. man mën naa ne Baobab mooy seen monde mooy seen monde bi. non non mais mais dañu fi gis ay jeunes. te xamuñu woon Baobab mais c'est que musique musique musicien du màgget musicien du màgget parce que tey jii ni nga ko waxee d'accord am na ñu fi nekk tey c'est normal parce que. musique ay ay étape la mais ñi fi nekk tey ak ñun ñëpp même génération la même génération la. léegi sa comeback muy demee. non mais ah mais duggee studio liggéey tëgg après Sénégal ñoo jugé. est nga ni dina. après autant d'années. ah yow tam <laughs> man nag macha allah. léegi may ñu ci hmm. loolu. non lu wala ci may. dig ñu ci day yomb <laughs> trop. ah déedéet day yomb. day yomb day yomb. non non non bàyyi ko beeg sama jigéen ma ne jaga yow sànq ba léegi yaa ngi jàppale. <laughs> man yow laa faral déedéet. jigéen <laughs> ñi dendee ma ne. léegi xool yow góor ñi góor ñi ci góor ñi jigéen ñi ci jigéen ñi. gisoo ni ngeen dendee. gisoo ni ñu dendee. waaye jaga bàyyi ma. jaga daal bàyyi ma. xam nga Moussa Traoré. waaw eh, nee nga ñu léegi par exemple baobab musicien du màgget. waaw euh, ñun bu ñu demee soirée baobab ñoo fay gën nekk xale. waaw certes bien que fekke wuñ ba baobab di commencé. mais monde yi bokkuñu c'est-à-dire baobab booy wax seen côté musique bëriwuñu concurrence. bëri mhm. comprendre booy seet Sénégal ñoom li ñuy def. ñi ko mhm. fiy def bariwul salsa booy seet même personne yi la mhm. et puis c'est de la bonne musique quoi qu'on puisse dire boo fa demee mag gis seen bopp ndaw gis seen bopp dëgg neexul te dañ koo mën te dañ koo mën yéen ngeen ñëw ci monde boo xamante ne Sénégal ñëppay mbalax waaw ñëppay tam rëmbi tam bi tam ñëppay craaka craaka ba riir bi bari mhm. cest à ñun ba tey bëgg nañu xam naka la Moussa Traoré di ñëwee mhm. essayer tirer son épingle du jeu cest à bu ñëwee ñu xam ne vraiment lii c'est euh, comeback la diñ de son nom quoi ñëw boo xam ne boo ñëwee ñu xam ne ñëw nga parce que aussi bu fekkee da nga nar a andiwaat album te album ba promotion bi du jàll mhm. du demee noonu tamit euh, mooy loolu justement li ngeen xewal mooy euh, euh, tëgg bu nekk ak feccam bu bees. waaw ak bi nga waxoon yow yaa ko wax sànq. dans mhm. le defoon ko ci euh, bi nga mujjee woon génnee. waaw bi jàllul bi. ak loolu noonu yëpp nga nar ko sóor ñëw fii fekk fii loo xamante ne lu ne gaañ. waaw moom laa expliqué moom laa wax xam nga tey man suma ma su ma génnee benn single walla ma duggee suñu génnee single yàlla fi def jàmm parce macha allah. boobu ba léegi boobu yàlla ma cat seexlu amiin waay lu ma def daal mu ne xale yi ba ci morceau bi teg ko ci nii rek euh, bien vrai que yàggul ne mais tey gars yi ñu bëri ñu ngi koy woyandoo saa yi may def benn affaire rek damay jéem a fexe def loo xam ni xale dañ koy woyandoo wala boo ci déggee di nga dégg benn mel ni boo xam ni di ko mën di di orchestre yi ngay nekk njag nga baal ma balaa ngay ñëw orchestre yi ngay nekk. waaw ndax dina arrivé nga jouer seen première partie bu dee déet. Mmh. Euh, lan moo tax mënoo imposer wu ba orchestre parce que dañuy gis ne que léegi phénomène bi mooy lan les soirées commencent tardivement. Mmh. nit ñi dañuy ñëw boîte bi minuit minuit trent mmh. dañuy toog ba à la fin dañuy nelaw artiste bi ba deux heures du matin du ñëw. temps boobu lan moo tax Moussa Traoré mënul imposer wu par exemple ak Viviane il gère les premières parties au moins trois morceaux quatre mmh. morceaux xumbal nit ñi yeewu ñu dugalaale ko Viviane waaw mais euh, day fekk xam nga tey man maay batteur Viviane tey ci orchestre bi amul ku mën a jouer batterie mais daa nga def première partie. si daanaka waaw lu ma seetaan. si dama def première partie Viviane ba ca Mauritanie. si dama def première partie Viviane. waaw xam nga mais euh, dama dem benn moment boo xam ni. man su may premier parti Viviane man maay batterie bi amul kenn ku mën a jouer batterie kon du mën a nekk du mën a nekk. xam nga tey man su ma def premier parti su amul ku jouer batterie mënu mënu ma def premier parti damay obligé bàyyi rek ba pare li nga wax noonu que ni hmm, léegi gars yi ay deux heures yi commencé parce que loolu mi ci musiciens yi la mm-hmm. parce que musiciens yi ñooy toog ay deux heures mais bu njëkk soirée minuit demi danañ commencé ñun lëm jamono ngay ñëw boîte minute pile ñu commencé yéeg jeu variété. mais léegi da ngay ñëw. mais loolu amatul bi di ñëwee ci sa kanam ci sa mais mais non léegi da ngay sa musicien. ñun ñii par exemple da ñëw deux heures du matin ngay gàddu sa guitare wala gàddu sa kii. pour mais loolu c'est pas man man loolu man musuma neex normalement mi booy ñëw ki fay xaalisam pour dugg mais da nga war a ñëw minuit demi wala une heure du matin nga commencé jouer gàtt la nga tas. ah ci manque de respect la bokk de xaw ma nag xam ngeen mais mais attends mais nag du manque de respect parce que tamit nit ñi ñoom ñoom ñoo yéex a ñëw léegi noonu bi ngeen ah, commencé waaw mais war a loolu coro waaw daan nit ñi daan nañu teel a ñëw non daan nañu teel a ñëw waaw mais biñ gisee nii minuit et gis nii musiciens yi deux heures la ñuy ñëw dañuy mujj wax ni nañu bàyyi ba deux heures ñu ah, def waaw léegi mais mais pourquoi bu ñu bàyyi loolu nag na gis na nit ñi bu ñu bàyyi loolu nañu teel a ñëw rek gis na musicien dof bu ñuy teel a ñëw ñu xam ni kii ah bi gars yi gars ñi ka dañuy teel a ñëw seen xaalis lañ fay dañuy teel a ñëw dañuy teel a ñëw tax ngeen animateurs yu bari nangutu ñoo def première partie parce que deux heures bi ngeen ñëw nit ñi xiif musicien bi mais boo jëlee micro rek dañ lay mais mais c'est vrai parce que tamit xam nit ki mu fay xaalisam toog ba yenn heures yi xam nga tey baal bu yontee dëgg rek soirée une heure du quatre heures doy sëkk parce que am na ñoo xam ne dañuy ñenn ñi comme genre yi dañuy sàcc waaw dañuy sàcc comprendre dañuy sàcc pour pour pour dem balaa balaa quatre heures kër ñu dem naan paa bi yeenu xam nga boo bëggee jaar fenn lekk baax na waaw wala waaw yooyu waaw ah. ah mais mais dëgg la li nga wax dëgg la mais coow dafa laaj am solo waaw te tontu woo ko ah, xam nga ne la euh, ba xam euh, lan moo tax première partie Viviane yow doo ko joué. nga ne ko nga ne ko yow euh, batterie bi kenn mënu ko joué donc yow yaa koy joué. waaw mais avant yow nga doon joué batterie doon def première partie am na keneen ko ko doon joué. noonu lañ koy xaaree noonu ci yow. Mm-hmm. dinañu ut kuy def batterie bi yow nga def loolu non parce que loolu loolu loolu loolu du kii non jarul tey. <laughs> yaayam la. non non déglu ma non jarul tey parce que xamul tax <laughs> parce que. loolu dafa am première partie des fois tamit mën naa ko dul nangu. mais lu tax. non parce que. ci si sa promotion la bokk maanaam doo am ku la déggee noonu. non du question di dégg question dégg. Mhm. mais man damay bëgg su may def première partie tamit aussi mu mu neex ma déjà mu neex ma walla euh, ma def euh, loo xam ni que. dama koy sentir quoi. yow da nga daan def première partie sax kenn du la fay carrément ci liñ la war a jox. parce que doo battre ba pare def première partie. kenn du la ko jox xam naa ne moo tax nga bàyyi. non non question moo du question moo tax nga bàyyi sax mais mm-hmm. man daf may neex rek parce que première partie moom. Mm-hmm. day fa day fekk Viviane ñëwul ñëw def première partie mais léegi am nañ ko xam moo koy def Babacar Seck moo koy def mooy première partie wala am temps ay temps yu jour bay nekkee. grand nga. bàyyi non non mais parti bi lu question premier parti de non lu question grand tey su ma am couche parti damay def premier parti parce que am nañu ay nit ñoo xam dañuy ñëw soirée moo xam ne affaire ku nekk musicien bu nekk am na ñoo xam ne yow yaa la indi soirée dëgg la. musicien bu nekk loolu moom muy muy ki guitare muy batteur muy Viviane muy keneen. ku nekk am na ko super étoile Jimi Mbaye moo fa daan yóbbu. am na ku nekk koo xam ni am am na ku nekk koo xam ni comprendre am na ku nekk koo xam ni kii moo la indi xam nga loolu la. léegi ñu ñëw ci beneen phénomène. Euh, li ngay joué ak ci ci yeneen artistes yi bëri na. waaw est-ce que yomb nga yomb na tey nga ñëw joué Thioro suba nga joué maman ginnaaw suba nga joué kii ginnaaw suba nga joué kii est-ce que ñoom ci seen biir jalousie du am euh, wala xëccante wala. non mënu mënu am jalousie xam nga tax signé ma fenn contrat mënu am jalousie. doo xalaat instant ñuy naan li nga joué Thioro joué loo moom. waaw mais xa ah xaw ma. même si mu fenn contrat mais maa ngi ci Viviane Viviane lay joué te Viviane buy joué du ma joué keneen parce que foofu laa ne. mais su ma amee su ma affaire su ma contrat bopp damay wax ne Viviane dama am contrat damay joué ci suma contrat bopp. comprendre mais amul ni fii ngay joué fii fii non man gëwuma loolu. kon man artiste. albumu Viviane bu bees bi yaa ci yaa ko yaa ci liggéey. non joué naa ci ay quelques morceaux. comme yan. non bu génnee bi joué yoo xam ni. waaw <laughs> mais yoo xam ni. joué album bi daal. ok waaw. kon euh, comeback bi sa album ñu xaar ko fii ak kañ. Euh, maa ci parce que almaam yi xam naa mi ngi seetaan. balaa tabaski wala. non mënul nekk su ma ko may fen mënul nekk de. après tabaski 2014 bi nii. non mais waaw incha allah. ah décembre bi yëpp ngi génnandoo de album yëpp a ñëwandoo. non attends moo mel affaire non c'est que moo mel affaire gis nga saa yi nag gis nga man loolu laay bañ. man loolu laay bañ gis nga nit ku nekk ak ki la bëgg nit ku nekk ak boo war a génnee li war a neex li war a jar day jar man ma génnee kase naa ko génnee rek parce que xam nga li li li li li gën a bon mooy nga naan non su ma génnee gaan fii. est-ce que dina kii yàlla. boolee duma am lii yàlla lay seetaan. mais nag stratégie da cee bokk. waaw mais waaw mais attends non mais mais stratégie ba ci nga ba kii di bomb dëgg-dëgg di génn. kan la non du ma tudd tur. non mais mais fii ñëppay bomb. non mais attends non fii ñëppay bomb. la crème je veux dire c'est que boo ñëw ne day génn. ba pare ba pare benn matel kan bëgg euh. def ay kii kraka kraka ne ne koy jàllale. waaw mais il faut nga xool foo koy jàllale. waaw mais xam xam xam boo boo boo nee kraka kraka day mel nii. musique bi ñii dañuy def nii ñii def nii. waaw am na ñoo xam ne li ñu te kenn xamul mu ko. waaw mais am na non d'accord non dëgg la. yow mi yow mi dégg daaj. non xam nga ne am na loo xam ne dara baaxul. noo dëgg la de. Mhm. c'est que bi léegi. Mhm. musique bi léegi moo yàqu. dafa saturé musique dafa yàqu loolu saturé de dafa neef loolu dafa saturé c'est que en fait dañu dañu dañu dañu nanguwul def ay recherche parce que boo seetloo lim sa jamono rek la ñuy joué ba léegi Mari Mbaye moo fi moo fi ne waaw moo fi ne. kon yéen xam ngeen ne musique bi recherche tuñu. non liggéeyatuñu génneetuñu dara. kon xam ngeen ko. non du question liggéeyatuñu génneetuñu dara ñi ngi ñi ngi ñi ngi génne mais dama la wax ne la jëmul def la beneen recherche. mooy li ma wax loolu Mari Mbaye. waaw xam nga tey jii. man la xam nga tey jamono boo déglu ko asoon jamono yëpp ak léegi. mais ñëpp moom la ñuy def. est-ce que kon yow doo viré xaw a dem tuuti ci acoustique parce que ñëpp rim. marimba ma xaw ma lan lu may def lu may wut ci acoustique lu muy way lu ma lu ma ciy wuti. yow ah. yaa bon. <laughs> moom ak mer. <laughs> lu ma ciy wuti. Euh, man mu ma man du ma waykat may dem ci acoustique. Ah, ci mbalax gi laay dem de. ah man café gi sax yàlla am acoustique. yàlla am acoustique way nànk la de. acoustique way nànk la non. kon daal acoustique waykat a ko man kon yow doo waykat mënoo way. non man du ma way. non dafay taas non du ma wéykat. mais xam naa ni daal mais xam naa ni daal xam naa ni bëgg xam naa ni. <laughs> yow boo demee ci eh, acoustique bi da ngay mais xam naa ni ma way de. mais xam naa ni daal Sénégal kaset yu fi bari liggéey naa ci quoi ci harmonie. Mhm. yu fi bari. waaw kon yow tey ngaa far nekk instrumentiste. non non damay instrument. kase bàyyi la déglu ma taasoo yooyu yëpp. maman sabaar ak batterie am nga leen luy joué ah. maman nee na mbaa nga nekk conseil xale. en fait man conservatoire waaw clavier laa doon jàng. piano laa doon def quoi. mais après dama dama dama dama. commencé kii rek après bàyyi. mais moo xam ne la soxna si mënuma mënuma mënuma bàyyi taasu di dem pourquoi ma koy bàyyi. li may def neexul. neex na damay laaj neex na moom. neexul neex na moom non bu neexul ngeen ma neexul ba bàyyi xale yi bëgg nañ ko xale yi bëgg nañ ko attends bu fekkee ne ma rek da ngay bàyyi taasum yem ci tëgg bu fekkee kay li may def neexul ngeen wax ma bàyyi waaye ku nekk am na loo gën a man comme lan tëgg nga gën a mën tëgg lan batterie a attends sabar yëpp mën taxawal ba maag moom demba laa judd nag waaye seetaan naa la as tuut démb ma ni démb laa judd yow tey nga judd waaw waaye am na lu ma jot a xam ci yow ba janoog yow sant yàlla euh, bu ma nee am na am na loo gën a mën am na loo gën a mën tëgg bat rek tëgg sabar nga gën a mën ni taasu non ñaaree ba laa ci gën xaw ma boo ci gën a ah, mën kon looy wax du ma musicien ah waaye dañ leen di seetaan moom lañ am ci yéen am na loo xam ne boo ko defee mu gën a dugg suñu xol ka boo wëyee mooy lan mooy tëgg ma bàyyi woy bi kon waaw pour yow ma bàyyi woy <laughs> nee na nga bàyyi dem ma bàyyi taasu non loolu may laaj loolu may laaj non bu bàyyi kii émission bi kii rek mais xam ne bu bëggul ma ba bu bëggul sax non non xam ne bu ko mu ñëw ñoom rek boo nga woyoon bëgg a dee ndax ñoom rek bi ñu fi way ah? waaw tey mu ngi nii pënd gi wureegul mu ngi ci Sénégal gi dama koy wayaat may ñu ci ñoom rek dama koy tëggaat dem ci people après fin bi yow yaay tëj ñoom rek di ñu ci may fàttali tuuti après may ñaar mooy ñoom rek li war a bees yow yaa koy tëj li war a li war a ñëw nga may ñu ci hmm. mais may ñu ci ñoom rek mais may ñu ci ñoom rek en attendant tegal ñoom rek bon te ñu ko teg nga def déedéet ñun mën nañ la accompagner nga def ko atam neta ñun ñëpp ay waykat neta rek boo ta newee ñu neta wal fa diwee arrangé ak leen ci kii bi xanaa xam sa bopp sama baat baaxul ba <laughs> waaw jeex na xanaa mëndir bàjjo nga dem ci boobu boo mënul ñam rek après xanaa lu ci topp xanaa xanaa doo fi jaar après ah mi ngi lay woyloo de matel te moom moo woy matel moom dina ba du way non mu tàggatoo bàyyi ko mu tàggatoo non non non ma mhm. mais xam fi ne nii comme xaman c'est que balaa may taasu bañ a sabar ak yooyu. yow demal rek gis nga ñun li ak li mën ci table bi. demal rek demal rek. xale bu jigéen bu ko mën yi nga koy defee. xale bu góor bu ko nga koy defee. gàttal gàttal kon kon kon gàttal bul def ni waaye li ngay tëgg baaxul. bëggoon ngaa noppi rek. wala ji noppi rek tëgg baaxul waaye. mais kon kontaan naa ah. man sama dëgg waa léegi teg ci dara. xam la ji nga koy defee. foo du fa. ma ne boo fa lu la fa yaakoo. Mm. li nga doon soo ko bañee dafa fekk yow gën ca ñaaw la cat laaw la ma laamin ci xale Sénégal ragi yaa ngi dem de <laughs> ma ngay dem ba nga xamee ne taawal bi mu dugg moom xam naa ne ak Modou moo tax ma bëgg nga bàyyi way lii laa mën de dinaa bàyyi way ndax yow kon sama jabar dafa may mere